ñi yore portable incha allah nañuy def seen portable seen portable yi silence parce que anti réseau bi mënuñu koo mënuñu koo couper parce que dafa am ñaar sites yoo xam ne dañ ko jël en direct kon portable yi nañ ko def silence wala vivre kon du guddal wax bi incha allah maa ngi jox microphone bi suñu docteur incha allah docteur Ahmad Lo teem waxtaan bi mooy ak ila alkitaabi wa sunna fadluha wa asaaruha mooy woote jëmale ci teere yàlla subhanahu wa taala ak sunna yonente bi sallallahu alayhi allah nañu déglu docteur mu indi ñu une heure de temps incha allah pour waxtaan bi incha allah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 sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain amma baad fa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di am mbégte ci dajawaat ak sunu mbokk yu tedd yi ci béréb bu tedd bi nga xam ne yoon bi du suñ njëlbeen bi yoon dajawoon nañu fi at mi weesu sun borom tabaraka wa taala ci tawfiqam mu dajale waat na fi ren yàlla na sun borom tabaraka wa def loolu lépp ci loo xam ne ngërëmam lay doon te defal ñu tawfiq ba lépp lu ñu fi wax mu dimbali ñu ba mu doon lu jub lu ci doon lu dënk mu jéggal na ko doomu aadama rek moom moom la mbiram demee noonu jataay bi ñu dajale tey mooy waxtaane lu ñu bokk noo ngi nekk fi béréb boo xam ne ñu ngi ko duppee markasu daawati ilal kitaabi wa sunna kër la koo xam ne woote ci alquran ak sunna tur woowu lañ ko duppee muy tur wu tedd wu baax wu am solo tey ñuy waxtaane tomb boo xam ne mi ngi jëme ci woote ci alquran ak sunna bu la neexee nga ne woote jëme ci alquran ak sunna bu nga ne woote jëme ci yoonu yàlla comme niñ koy waxee addaawatu ila allah wala ñu ne addaawatu ila sabilillah woote jëme ci yoonu yàlla ak woote jëme ci yàlla ak woote jëme ci alquran ak sunna lépp menn maanaam rek la danañ jéem a tënk Euh, kàddu yi ci ñetti tomb benn bi mi ngi jëm ci taarifu daawa bu ñu waxee daawa woote luñ ci jublu beneen bi mooy fadlu daawati ila alkitaabi wa sunna ni ko suñ mbokk mi waxee léegi woote jëmale ci alquran ak sunna dafa am ngëneel ngëneel loolu mooy lan ñetteel bi mooy asaaru daawati ilal kitaabi wa sunna muy jeexit impact yi nga xam ne woote jëme ci alquran ak sunna daf ko am ci doomu aadama yi daawa nag suñ ko waxee ci kàllaam ak rek li muy mooy al talab wala adduaa ila shay wala alxas ala qasdihi suñ waxee ne woote ci kàllaam ak arab ñu koy tudde daawa kooku dafay mel ne kuy sàkku dara la wala kuy soññee ci dara su dee dañoo bëgg a wax nag définir ad-daawa ila wa sunna wala ad-daawa allah wala ad-daawa ila sabilillah dañuy wax ne hiya talabu wa nidaau wal xas ala al imaani billahi taala wa ibadatihi waxdahu la sharika lah wa taatihi wa tarki macsiyatihi wa taxalluqi min al axlaaqi alsharciya wal aadaabi almarciya dañuy wax ne woote bi lañ ci jublu dëgg nag ci définition bi mooy woote yëkkati sa kàddu ba ñépp dégg la nga soññee ci ngëm sunu borom tabaraka nga woote ci ngëm mu nekk ci xol ànd ak ay jëf ak wéetal sunu borom tabaraka jaamu ko moom dong te bañ koo boole ak dara boole ko topp ko ci def ay ndigalam ak bàyyi mboolem ay tereem boole jikko woo jikko yi nga xam ne moom la sharia santaane ak teggiin yi nga xam ne moom la diine indi ki woote jëme ci loolu mën na noo wax ne mi ngi woote jëme ci alquran ak sunna bu ñu neexee ñu ne mi ngi woote jëme ci sabilullah maanaam yoonu yàlla bu ñu neexee ñu ne mi ngi woote it jëme ci yàlla daawa moomu nag baatub daawa ci alquranul karim am na ay maanaa yu bari yoo xam ne indi na ko waaye nag benn bin ci jublu rek mooy boobu nu wax ndax daaw boo demee ci alquran da nga gis ne comme ni ma ko waxee léegi dana firi ak talab sunu borom tabaraka wa taala mi ngi koy wax ca suratul furqaan laa tad'u lyawma suburan waxida wad'u suburan katira maanaam laa tatlubu mu ne bu leen sàkku benn musiba benn alkande waaye sooy bëgg ngeen sàkku alkande yu bari kooku yéefar yi lay waxal dana firi ak mooy ku yëkkati baatam di jooru woote ci kaw sunu borom tabaraka wa taala na loolu ci alquran wa yowma yaqulu naadu shurakaai alladina zaamtum fa daawhum fa lam yastajibu lahum nee bu ëllëgee yowmal qiyaam day wax ne yëkkati leen seeni kàddu ngeen jooru woote ca kaw ñi ngeen jàppoon ne samay moroom lañ sunu boromay wax de ñi ngeen jàppoon ne samay moroom lañ ba ngeen doon leen jaamu woo leen leen nag tey ngeen yëkkati seen kàddu jooru foofu naa di wala jëfandikoo waaye nee na fa daawhum wala tegte ne ne daawa ci boppam day firi loolu ba tey nee na ñu waaye taxul ñu wuyu leen daawa dana ci alquranul karim as suaal mooy ngir ñu may la borom bi tabaraka wa taala firndeel na ci alquran ba tey comme ni ci banu israil qaalu udu lana rabbaka udu lana rabbaka yubayin lana ma lawnuha foofu laaj lay firi laaj sual boobu laaj lan koy firi mu ne banu israil ñoo wax ñu ne laajal nu sa boroom mu leeralal nu nag wi ñu bëgg ñu rendi ko ban couleur la am kon kooku question la foofu addu'a question lañ koy firee foofu mooy laaj moo tax mu ne ud'u lana rabbaka foofu euh, laaj la firi boo xam ne mooy question Euh, du'a dana wala daawa dana firi ba tey al istiraasa mooy sàkku ku la xettali ku bëgg a xettaliku mooy koo xam ne dafa dugg ci musiba bëgg ku ko jàppale mu génn ca musiba ma borom bi tabaraka wa taala wax na ko qul araaytakum in ataakum adabullahi aw atatkum saatu gayra allahi tad'una in kuntum saadiqin mu ne ndax su fekkee ne euh, mbugalum yàlla dikk na wala ngeen nekk ci càggante ba mu wóor leen ne yowmal xiyaama bi ñëw ndax su boobaa da ngeen mën a xett li ku ci keneen ku dul yàlla ndax da ngeen mën a ñaan kenn mu xett li leen ku dul seen borom tabaraka wa taala a daawa dana firi it al amr muy santaane ndig digle ordre maa lakum laa tuminuuna billahi wa rasulu yad'uukum li tuminuu bi rabbikum lu leen teree gëm seen boroom te xam ne yonent bi mi ngi leen di digal ngeen gëm seen boroom foofu yadookum yamurukum lay firi dana firi it adduwaa muy ñaan boo xam ne tàllal sa loxo di ñaan la kooku danañ ko tudde ba tey daawa xam nga ne baatu duwaa itam ci lañ ko jëlee ud'u rabbakum tadarruan wa xufya innahu la yuhibbu almu'tadin ñaan leen seen boroom tàllal leen seen loxo ngeen ñaan seen boroom te boole ko akuk toroxlu boole ko akuk làqu sunu borom tabaraka wa taala bëggul kenn kuy jalgati kon baat yooyu yëpp muy juróom benni terme yoo xam ne ay maanaa bu ci nekk ak daawa da koy firi waaye baat yooyu yëpp boo seetee benn bu ci nekk am na ab cër ci bii nuy ndax am na ci ak wàll goo xam ne kii day sàkku te day yëkkati kàddoom te day ñaan suñ borom di topp ndigalam di sàkkoo xettaliku ci moom yooyu yépp mu boole ko ngir ñot di nit ki ak soññ ko ngir mu jëfe alquran ak sunna li waral loolu nag moo di ñaan boobu mu wax mooy jaamu sunu borom tabaraka wa te daawa ci boppam kii woote daa jëme nit ki ci mu jaamu borom bi tabaraka wa wéetal ko bañ koo boole ak dara moo tax suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ne mbindeef yi ba mu leen di bind ñi jaamu leen ñi jaamu ko moo tax kon kii woote jëme ci loolu mi ngi woote jëm ci alquran ak sunna nee na wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inna allaha huwa arrazaqu dul quwati almatin sun borom tabaraka wa taala nee na binduma jinne ak nit binduma jinne ak nit lu dul ñu jaam ma sallaaw ma leen ngir bëgg na ñoom nañ ma wutal lu ma lekk maa uridu minhum min risqin wutuma ci ñoom wërsëg wa uridu an yut'imuun wutuma itam ñu jox ma lu ma lekk kon yàlla laajul xaalis laajul luñ koy wërsëgal ndax kat bu dee wërsëg sunu borom tabaraka wa mooy joxe wërsëg nga tax inna allah wa razaqu dul quwati matin te xelum doomu aadama li muy nangu su fekkee xel ma mucc na moo di li ñuy tudde jaamu fu mu jógee rek sunu borom tabaraka wa taala la mën a jëm ndax ki ko yeyoo mooy koo xam ne mën naa bind ki mën a sàkk man a créer kooku moom dong moo yeyoo ñu jaamu ko am na benn borom xam-xam da doon wax ne ku bëgg ñu jaamu ko sooy boo nga defar defar sa nitu bopp la comme ni yàlla def bi mu bëggee ñu jaamu ko dafa sàkk jinne ak nit ne leen jaamu leen ko da da ngaa màgg la jaamu ah defaral sa nitu bopp ne leen jaamu leen ma ba xam da ko mën a moo tax borom bi tabaraka wa taala dong moo yeyoo ñi jaamu ko walladina yad'uuna min dunillahi laa yaxluquuna shay'an wa hum yuxlaquun ñi nga xam ne ñi ngi leen di jaamu ba di leen méngaleeg yàlla sunu boroom tabaraka wa taala nee na ñooñu mënuñoo bind dara mënuñoo sàkk dara te ñoom ci seen bopp dañ leen a sàkk moo tax doomu aadama sàkkul dara nag man na fee fekk nag yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo leen sàkk mu defaral ko am xel ba mu xarañ muy nangam di booleeg nangam ba nangam jóge ci waaye loo xam ne moo ko karee sàkk ko fekk fu dara nekkul woon mu indi fa dara loolu suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko yeyoo inna alladina taabuduuna min duunillahi laa yamlikuuna lakum risqa ki nga xam ñi nga xam ne ñoom ngeen di jaamu seen wërsëg yoruñu ko wërsëg bi ki ko kenn moo di arrazaaqu zul quwwatil matin mu di sunu borom tabaraka wa taala loolu mooy li xelum doomu aadama mujj nangu waaye ginnaaw nga xam ne doomu aadama day dem ba mu yàgg eh, xel mi ak bind bu sell biñ ko bindoon mu waroon a nekk ci tawxiid day dem ba mu yàgg mu soppiku jóge ci di jaamu yàlla waaye muy dem di jaamu leneen lu dul yàlla jóge ci màggal yàlla mu dem di màggal leneen lu dul yàlla fekk loolu amaana environnement ba muy dund comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajjisaanihi aw yuladul mawlud ala fitra nee na nit kiy juddu day juddu fekk moom ak sell la indaale ak mbaax waaye ay waajuram su waxee ay waajuram mooy environnement bi ko wër kër gëm nekk dëkk ba pénc ma ñooñu ñooy participer ci moom ba mu soppeeku su soppikoo nag yor beneen melokaan nag jóge ci jaamu yàlla jëm ci jaamu meneen koo xam ne bindeef la wala mu jël àq yàlla di ko jox koo xam ne bindeef la wala seytaane yi nga xam ne shayatinul jinn wal ins la ak woote yu yàqu yi nga xam ne mi ngi tasaare tasaaroo ci kaw suuf kenn ku nekk di woote ci dara loo xam ne lu juyoo ak alquran ak sunna la yooyu yëpp boo ko boolee mooy waral mu jaadu ci ñi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala jox na leen ab cër ci pas-pas bu wér jox leen cër ci alquran jox leen cër ci sunna ne dañoo war a jub ñooñee nga xam ne seen xel yu nañ ko ay jaxase kat jaxase ko ñoo xam ne shayatinul jinni wal insi ñoo koy def wala environnement bi jaxase ko société bu yàqu bi ñooñe ñi jóg jéem leen ak dimbali jàppale leen delloo si leen bañ dellu si waat ci siraatul mustaqim loolu mooy muy yitte yi yitte tax daawa bi jóg kon kooku mooy loolu cosaanul daawa nag ci jëmale ci alquran ak sunna mi ngi ci waxu sunu borom tabaraka wa taala mu ne laqad manna allahu ala almuminin id baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin waxaat ko ca weneen saar wa huwa alladi baata fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin sun borom tabaraka wa taala foofu li muy wax nee na yàlla ci boppam moo defal xéewal ñi ko gëm yàlla moo leen defal xéewal yéen ñi ko gëm xéewal ga mooy lan nee na mu yónni ci yéen ab yonent boo xam ne ci yéen nit la bokk du malaaka du jinne du leneen waaye doomu aadama la ni ngeen ko doone yor cër yi ngeen yor li leen di dal di ko dal li leen di gaar ci ay xiif ak i mar feebar ak i wéraat am ak ñàkk yooyu yépp di ko gaar alayhi salaatu wasalaam nee na kooku yërmaande suñ borom la ak xéewalam waaye nee na yonent boobu yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim dafa ñëw ngir di leen jàngal alquran maanaam kéemaani suñ borom yi jënam gën a yaatoo di leen war ñi ngeen war a waaru ngeen di ci waaru di jàng alquran ngeen di dégg wa yuzakkihim mu di leen yar itam di leen sellal di leen defar wa yuallimuhum alkitaaba wal xikma mu di leen jàngal alquran ak sunna al imaamu Shafii rahimahullahu taala mi ngi wax ne fépp foo gis ci alquran ñi boole eh, alkitaab wal xikma xamal ne xikma foofa sunna la fi fii kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jëkk ñëw di woote ci alquran ak sunna woote booba nag sax na ci alayhi salaatu wasalaam ba nim fi jóge ca loola la nekkoon am na ci it lam ca bëggoon def na li ko boroomam santoon ba sunu borom tabaraka wa seedeel ko loolu ndax kenn ku nekk xam na ne ca xijjatul tàggoo ca ak askan wi gannaaw bu mu defee xutbaam bu yaatu ba ca bisu arafa muy discours bu gudd boo xam ne làmboo na cosaani lislaam yépp ak piliers yi ci gën a dëgër bi mu noppee dafa wax nit ñi ne kenn ku fi teew ku nekk na ko jottali ku fa téyewul te ku nekk xam na ne ndaje moomu yonente bi alayhi salaatu wasalaam amal kero ci mu arafa aw mbooloo daje na ko moo xam ne musta daje ci jullit yi ci dund yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbooloo mu baree noonu kero la mas a taxaw di wax ci seen biir borom xam-xam yi ñu ngi koy nattale ci miatu alf téeméeri junni ci ay doomi aadama cent mille ñu ñaar fukki junni nag waaye téeméeri junni bi mu noppee dafa wax ne ala ballaxtu ndax jot naa ñépp ne ko ballaxte yaa rasulallah muy joxoñ ci kaw di wax ne allahuma shhad allahuma shhad allahuma shhad yow saa borom seedeel kon yow saa borom seedeel yow saa borom seedeel ne li nga ma defloo woon kon moo ngoog def naa ko kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam jottali na mbooleem diine moo tax aaya jooji wàcc ci moom te wàcce koo ko muy alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diina aaya boobu wàcc ci moom te fekk ma ca Arafat ca bis boobu mooy wane ne diini lislaam kero farata yaag sunna yaag teggin yaag jikko yaag lépp lu aju ci lu yàlla bëggoon ci jaam yi ñu mel noona wala ñi koy jëfe mu doon ay pas-pas wala ay jaamu yàlla bis booba fekk ca la lépp wàcc ca la noppi ca loola dëgg la ay ayaati alquran wàccaat na gannaaw bu fa yonente bi alayhi salaatu wasalaam jógee waaye wàccaat yépp boo ko xoolee bu ñëwee day confirmé waat lu mu fa fekkoon maanaam day dëgëral lu fa nekkul waaye sosaat lu bees nag amaatu fa gannaaw bi kon diine foofa la mate su fekkee diine nag noonu la mate yonente bi alayhi salaatu wasalaam jóge fi dem kon da lay wóor ne dara mënatu caa dollikuwaat lu amul woon ci jamono yooyu ñu tudde ko diine muy doonaat lu baax kooku mooy dëgëral nit ki gannaaw bu pas-pasam dëgëree ba noppi mu dëgëral ko nag ci wàllu nag jàpp ci sunna ak woote ci sunna gi nga xam ne day làmboo wartandikuloo nit ñi itam biddaa ndax biddaa dafa doon loo xam ne li muy firi dafa doon lu ñaaw doonte a koy def lu gën a bari moom daa jàpp ne ci lu baax la nekk ndax xër ci jaamu yàlla wala xër ci mbir wala xër ci doomu aadama mooy tax nit ki dem ba dugal ci diine lu ca bokkul léeg-léeg seytaane gañee ko koo xam ne day jàpp ne sunna moom lu yaatu la loo xam ne daal ginnaaw xas nañ santaane julli julli gu la neex rek mën nga koo julli ak lu la neex ginnaaw xas nañ santaane itam tudd yàlla nu la neex nga koy tudde fu la neex nga koy tudde ak waxtu woo xam ne wu la neex wu ne ak lim bu la neex seytaane foofu lay naxe nit ñi ba dugal ci ñoom yenn bidaa yi nga xam ne yu mat a wattandiku la ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu leen réere mbir bu leen fàtte ne mat googu diine mat ci loxoom dafa mat ci anam yépp maanaam ya doon wàcc yépp dafa wàcc julli dafa wàcc koor asaka tudd yàlla lépp loo xam ne xeetu jaamu yàlla wàcc na ci moom ci ak dundam bi mu wàccee yëmut ci loolu waaye dañ koo wax nu mu koy defee mu jàngal nit ña defin ya lu ca am ab lim mu ne la lii ñetti yoon nga koy wax lu ca amub lim beneen mu ne lii fukki yoon lu ca amutub lim mu ne loolu da nga koy wax loola sa waxtu bu dee kuy tawaaf mu ne ko nii ngay def juróom-ñaari yoon lay doon fii ngay tàmbalee la ngay gàccoo da ngay génne mbagg mi kon bàyyiwul dara ba ci booy dugg ca wana ba mu ne la tànk bii ngay jiital booy génn bii ngay jiital booy dugg ci jàkk ji bii ngay jiital lii ngay wax booy génn bii ngay jiital lii ngay wax kon lépp daf ko jàngale nuñ koy defee kon biddaa boobu yëmut ci ne nit ki day sos loo xam ne lu amul woon la waaye yi amoon ba noppi nit ki day biddaawu ci soppi gi mu koy dugal gi ci dugal lu ca bokkul woon lim bi mu koy jox te amu ko woon moo tax nit ki dafa ñëw ci jàkka ja di julli gannaaw boo xamee ni julli nañ suba ba noppi Omar ibn Xataab ñëw yor kàcciraan muy yar bu sew bëmax ko ba noppi dóor ko mu ne ko ndax da nga may dóor nag ci julli mu ne ko déedéet waaye dama lay dóor ci jooyoo ak sunna lu bari ci nit ñi dañuy ñu gisee ñu créer seen bopp façon jaamu yàlla la moo xam ci lim la moo xam ci defin la moo xam ci waxin la soo ko waxee la muy comprendre mooy dafay defe ne yow da ngay tere ku wax laa ilaha illallah wala ku wax astaghfirullah wala ku julli sax wala ku woor sax fekk loolu kenn du ko tere waaye la ñuy tere mooy jàdd yoon wu bokkul ak yoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam biddaa li ko tax ñaaw mooy dafa làmboo ñaari mbir yoo xam ne kii def biddaa mënu ci mucc ci benn benn dafa làmboon yonente bi alayhi salaatu wasalaam am na lu mu nëbb loo xam ne daal ñëw na nekk ak saxaaba yi ba dem te mbokk ci sunna wala mu bokk ci loo xam ne lu war a jaamoo yàlla la mu ñëw ba dem te jàngalewu ko maanaam da koo nëbb wala da koo ñaar yooyu bu ci ab jullit fas rek musiba la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu mu xamul munta bokk ci diine ji mukk yonent bi alayhi salaatu wasalaam amut lenn lu bokk ci diine ji ci jottaliwu ko yonent yépp sax dafa xaraam ci ñoom li ñuy wax alkitmaan muy nëbb kon amul lu mu nëbb yaa ayuha rasul balligh ma unsila ilayka wa in lam tafal fa ma ballagta risalata lépp lu ñu wàccee ci yow yow yonent bi na nga ko jottali soo nëbbee lenn rek mel na nga mosoo jottali dara loolu la ko yàlla wax wallahu yaasumuka min annaas kon biddaa loolu mooy ñaaw ñaaw bu metti bi ci nekk moo di ki koy def moo xam wax na ko ci làmmiñam te lu bari du ko wax ci làmmiñam sax nag ndax néew na nit ki di wax ne yonente bi xamut lii wala muy wax ne lii yonente bi da koo nëbb waaye yeneeni taawil lañ lay jox yeneeni waxin yoo xam ne jàpp ne am na ñu baaxee ñoo xam ne da koo jagleel am na nangam nangam yu mel noonu am na ñoo xam ne nit bu baax bu ko indee des ba war a jël xeen yu mel noonu kooku la seytaane li jaare ba dollil leen ci diine ji yu ci bokkul te nag dafa dem ba bari nag bu jéggi dayo bari googu mu bari bokk na ci sabab yi war tax nit ñi jógaat nag ci jàngale alquran ak sunna ak woote ko ak jàngir yi du wax na ñi soppi ko waaye ñi ñi ñi rafetalaat ko rafetalaat jàngir yi alquran yi ci boppam ak mokkal yi waaye ñi rafetalaat njàngum sunna mi yéen koo teg ci ay programme yu baax di ko jàngale ci jàkk yi di ko jàngale ci daara yi dugal ko ci biir programme yi école yi xale yi bañ a jàng alxuraan mokkal ko yem ca daal di dem ca marché ba liggéey waaye nañ jàng alxuraan yi jàngalaal leen sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy anam boo xam ne mënul ñàkk ñi def ko ci mën a woote ci alxuraan ak sunna woote nag muy daawa dafa am ay xaaj yu xaw a takku ndax bu dee dañ koo xool ci wetu lan mooy atteb daawa ndax farata la ndax sunna la ndax fardu kifaaya la comme ni ñu koy waxee bu fekkee ne atte bi la daawa woote mën naa nekk fardu ayn maanaam farata joo xam ne day tegu ci loosu ku nekk mën naa nekk it fardu kifaaya mooy loo xam ne dafa war xeet wi yépp su amee kenn ku ko def wala ñenn ñu ko def ña ca des bàkkaar du tege ci seen kaw maanaam daf leen di wàcc kañ la ban façon daawa mooy nekk fardu ay nga xam ne ku ku xam dara ku ne da lay war kooku mooy al amru bil maaruf wa nahi anil munkar li nga xam nga xam ne jàng nga ko ci xam-xam mu néewoo bari muy benn aaya sax boo xam ne xam nga ko xam nga lu muy firi yaa nga cay góorgóorlu di ko jëfe muy benn xadis sax boo xam ne xam nga la muy firi dégg nga ko yaa nga ciy kër kër di ko jëfe jëfe kooku jaadu na ci yow boo gisee ku ko xamul nga baaxee ko ko comme niñ la ko xamale loolu muy balle boo an nii walaw aaya jot li leen donte li nga xam jàngal ko ki nga xamut li nga xam ne xam nga ne lii lu bon sax jàngoob aaya jàngoob xadis waaye xam nga ne lii dégg nga borom xam-xam ne lii baaxul kooku xam-xam la mi ngi ci sa bopp moo tax euh, jàng xam-xam bi caagi ni muy jàng rekk di tari waaye li nga xam ne wóor na la ne lii ci dalil la tegu te borom xam-xam nee na la lii lu baax la lii lu baaxut la nga gis ku ko def tam doon lu baaxut kooku waajib la ci yow fardu ayn la ci yow kooku nga ñëw ne ko lii nga def kat baaxut loolu mooy man raa minkum munkaran fal yugayyirhu ku gis ci yéen lu baaxul na ko soppi kon fardu ayn bi mooy ki xam dara di ko jot li ak ki nga xam ne xam na ne lii baaxul mu gis ku koy def mu war ko koo tere kooku ñépp la war sartuñ ci yow nga nekk aalim bu mag sartuñ ci yow nga doon koo xam ne say at nii lay toll sa li ci tegu li ci tegu rek mooy loo ci mën a doon na ànd ak ay teggiin ak nañ koy jëfe waaye loolu moom day war ñépp ba ca tegu mooy bi nga xam ne dafa nekk fardu ay muy fardu kifaaya fardu kifaaya buñ ko waxee ci eh, waxiinu boroom xam-xam yi yi mooy loo xam ne ñépp la tege ci seen kaw waaye ñenn ñi mën nañ koo def wuutu ca ña ca des ci misaal fardu ayni bi ma noppi léegi mi ngi mel ni julli julli farata farata la ci mboolem mukallaf mu amul ngànt su waxtu julli jotee suñ toogoon fi nga timis jot mënuñu ne ñenn ñi dañuy julli yóbbaale ñi ci des waaye kenn ku ne yaa mën a jullil sa bopp kenn du jullit kenn kooku mooy fardu ayn fardu kifaaya nag mooy loo xam ne ñenn ñi mën nañoo yóbbaale ña ca des maanaam ab néew génn na àdduna bokk ci jullit yi kooku tege na ci kaw xeetu jullit ya nekk ca dëkk boobee ne waa jii de warees na ko sang warees na ko sang warees na koo jullee waajib boobu tege na ci loosu kaw askan bi yépp su fekkee kenn defu ko ñéppay am bàkkaar waaye nag su amee ñenn ñi jóg fukki nit ñaar fukki nit defar ko ba mu baax ñu sàng ko yóbbu ko ca jàkk ñu jullee ko bàkkaar ba wàcc na ñépp kooku mooy fardu kifaaya daawa nag am na ci pàcc boo xam noonu la mel maanaam fardu kifaaya ci kaw loosu askan wi la tegu waaye daa am ñu fay wuutu ña ca des mooy daawa bi ñu tuddee ak daawatu taxassusiya ñi nga xam ne dañoo jàng daawa ba xóot ca xam asaalib yi yoon yi ñu koy defee bu dee dañoo dugg ci li ñuy wax xiwaar mu dialogue nan lañ koy defee buñ gisee ku ay lënt yu bari nekk ci boppam nuñ koy dindee buñ demee ci jataay boo xam ne fatwa la laaj nit ñi yor question yu bari nañu lijjantee loolu loolu mooy ñi nga xam ne dañ leen jël jàngal leen ba ñu am xam-xam waaye ñu tàggat leen ci anam yi ñu war a jëfandikoo ci woote jëme ci alquran ak sunna ñooñu loolu askan wépp mënuñu ko kon faww day am ñu ca wuutu ña ca des moo tax sunu borom tabaraka wa taala ne wal takun minkum ummatun yad'una ila alxayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar wa ulaayika humul muflixuun na am ci yéen wal takun minkum ummatun maanaam mbooloo na am ci yéen menn mbooloo moo xam ne yad'uuna ila al xayr dañuy woote jëmi ci alquran ak sunna su ko defee ñooñu euh, ñooy wuutu ña ca des ci loola ndax dëgg la fu waay nekk fu ne te doonu jullit war ngaa xam ci dara ci diine waaye nag taxassus nag spécialiste nag ci diine loolu dafay laaj nag euh, am ñenn ñu ko defe ñi ci des nekk ci leneen ndax xeet wet liñ soxla dafa bari maanaam suñ ne woon xeetu Sénégal yépp dañoo bëgg ñu nekk ay fuqahaaw yoo xam ne dañoo jàng sharia ba xam su boobaa amatuñ ay tabaxkat amatuñ ay ministre amatuñ ñoo xam ne ñooy def nangam amatuñ amatuñ ay médecin yoo xam ne ñooy faj doomu aadama amatuñ ab armée boo xam ne kon nit ñi kenn ku ne ci diine da war a xam li nga xam ne lu munta ñàkk la ci nga xam ko en tant jullit waaye nag spécialiste ba nga xam ne day féetewoo jàngale diine nag ak tasaare ko ak woote ca loolu ëpp kuréel lay doon ci ñun moo tax de bi ne falawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun yatafaqahu fi diin wa liyundiru qawmahum ida rajaw ilayhim laallahum yaxdaruun nee na askan wi dafa war a am mbooloo mu jóg jàgg leen waxtu jàng diine suñ ko jàngee ba mën ko dellu siwaat nag ci xeet wi lañ jàngoon ñu jot li leen ko kon kooku daawa bu mel noonu fardu kifaaya lay doon ñenn ñi dañ ciy yóbbaale ña ca des waaye ñépp mënu ñoo doon ay spécialiste ci anam bu mel noonu léegi nag bokk na ci li jaxase mbir mi moo di ay nit ñoo xam ne dañoo jóg pour bëgg a wuutu askan wi ci anam bu mel noonu te fekk jaaru fa ñu waroon a jaar ba ak si foofu am aw fit ci diine di ci wax léeg-léeg ñu leen islaamologue léeg-léeg ñu jox leen yeneen i tur ñuy wax ci tur diine ci tur pas-pasam ci tur fiqam sañ a toog di fatwa ñu leen di laaj ñuy ubbee ci diine te boo leen laajoon yéen fu ngeen doon ku leen doon jàngal li ngeen xam duñ la wax ne kenn moo leen ko doon jàngal koo xam ne borom xam-xam buñ xam la dañoo songu téere yi rek di liir ba mu yàgg ñu xëy benn bés ni cëpp ñu ne kooku borom xam-xam la te askan wi ginnaaw xamuñu kuy borom xam ku dàq a wax rek ci nit ñi wala gën caa bari wax sax wala gën caa dëru fit su ko defee ñu ne kooku mooy borom xam-xam la ndax xam-xam ki ca soriwut fit wa day dëgër loolu ku jaar ci silsilam ni ñuy jànge xam-xam danga xam loolu ci sa bopp nit ki dana dem ba mu yàgg muy fàttaliku boppam ci gannaaw yoroon na ci au fit xam ne day dem ba mu yàgg mu jéggi foo ko yëg ne man de ndekete ci musiba la nekkoon dal di soppiku carrément fit boobu yoroon duutu ko yor ki nga xam ne nag daa toll ci diggante boobu mbooloo mi ne ko yow kat yow ndekete nii nga amee xam-xam fu mu teew ngeen borom xam-xam baa nga kooku day woru rek di gën a wéy te musiba ma cay tegu mooy duutu jàng ndax su continué woon jàng dana dem ba mu yàgg mu xam ne moom kat liñ koy teg doonu ko waaye ki xamul xam-xam nga xamul luy xam-xam ci boppam kooku mën da yëg ne amul xam-xam ginnaaw nit ñi wax nañ ko ko rek mu jàpp ne moom li nit ñi wax dëgg la loolu tax na lu bare bari ci diine ñi ngi koy jaxase ci suñ réew mi rawatina ci wàllu média bi li ñuy bind li ñuy wax ci rajo yeeg li ñuy wax ci télévision yeeg lu ci bare bari boo toogee di ko déglu bu yàggee da ngay yëg ne Euh, am yërmande lool ci askan wi nga xam ne dañoo toog di déglu lu mel noonu te jàngaluñ leen ñu jàpp ne xam-xam la ñuy déglu boo xam ne buñ noppee dañ ko war a jël di ko jëfe loolu musiba mu mag la moo xam ne réew muñ aarul diine rek foofa la mën a amee euh, ba tey daawa danañ ko séddale ci geneen anam muy euh, min naxiyat al maanaam buñ xoolee étape yi daawa di jaar te delloo ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam nan ko dunde woon dañoo gisoon ne dafa amoon daawa sirriya am daawa jahriya amoon na woote boo xam ne ci jamono dekk tasaare wuñ ko woon déclaré wuñ ko woon waaye dañ doon woote ndànk-ndànk dem ba toll ci étape boo xam ne lañ doon dund màkk soppi na soppi ko dañu mën koo yëgle nag fu nekk loolu euh, kenn du wax ne dafa yemoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ba fii nu toll di wax ak yéen am na ay réew yoo xam ne kenn mënu faa jékki-jékki déclaré woote bi lislaam di ko wax ca kaw nit ñi di ko dégg ngir ay fit fit la yoo xam ne yu yu méttee méttee métti la man gis naa koo xam ne ci réew moom dëkk ku mokkal alquran la moom xale boobu bokk ci benn concours alquran bu ñu doon def ci mel réew ci réew jullit yi mu ne moom bàyyam fi mu ko doon jàngale alxuraan daanaka say boo nga ne ci am pax la ndax kenn sañul woon a yor ab kaamil ci réew moomu ñu lay gis wala ñu xam ne yow mi da ngay jàng alxuraan wala ñu xam ne yow mi da ngaa mokkal alxuraan wala da ngay julli ku koy def ku nekk da ngay nëbbatu nee na bàyyam bi mu liggéeyee këram ba noppi souterrain ba dafa liggéey loo xam ne lam am ciy téere fa la ko teg def fa daaraam ci secret bu xëyee wala bu guddee moo xam waxtu wu muy jël jàngal ay doomam bu ñu xëyee jaxasuwaat ci mbooloo mi dem euh, liggéey kon ñooñu daawa sirriya mënta ñàkk ci ñoom société bu mel noonu bu ñu ko gisee dañuy delloo siwaat jamonoy Makka ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon dund mooy la jàppandi rek nga di ko defee noonu ba bu keroog ngay tane ci wàllu diine kon euh, fu waay toll bu nekk war ngay sant sa borom tabaraka wa taala ci bu la jàppandalalee Euh, doomu aadama yi nekk dëkk bu mel ne bii doon ay jullit yor seen i jàkka di julli di woor kenn dalu ci seen kaw kenn terewu leen ko suñ bëggee jàng seenu xam-xam def ko suñ bëggee def seen conférence def ko kon nun anam goo xam ne daawa sirriya borom bi tabaraka wa taala musal musal nañu ci sunu bu woote ca kaw lañ koy wax amul lu ñuy nëbb ci jàkka yi lañ koy waxee ca kaw min bariya ku bëgg a xam nun ñii luy suñuy pas-pas ak lu nekk yu mel noonu boo dégloo rek daal di xam lu mu doon amul lu ñuy nëbb mooy tolloog la borom bi dëkk tasaare woote bi jot nag publier ko ca kaw jot daf ni ko qul haadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittabaani wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikin na nga déclaré ca kaw ne waxal ne qul haadihi sabili yëkkati ko ca kaw ñëpp xam ne lii mooy saw yoon yow ad'u ila allahi ala basiratin damay woote jëmale ci yoonu yàlla mu ànd ak xam-xam ala basiratin ana wa man ittabaani képp ku ma toppit kooku day feddali ne ku ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woote ci alquran ak sunna day daal nekk waajib ci yow kon woote ak alquran ak sunna amul lu ñuy nëbbu ci kanam ay jullit amul sekkare amul ñu naan ñi am nañ béréb yu ñu daje am na ñu yub yubal am na lu ñuy ràpp nangam des leen war a ragal waaye déedéet ñoom seen la ñuy wax ca biir néeg ba mooy la ñuy wax ca kaw minbar ba amuñu lu ñu nëbb kon woote bi lislaam noonu la war a mel ba tey am na woote boo xam ne fardiya la ak boo xam ne jamaa'iya la yooyu yëpp ci xeeti woote yi ci la bokk woote fardiya mooy nit ñi ni ñu leen di woo bokkul façon wooyeen yi bokkul lii nu toog nii ab woote la boo xam ne woote bu mbooloo la dañoo woo mbooloo mais ñi bokk toog di déglu ñuy jéem euh, fexe ba am lu ñuy leeral loo xam ne mbooloo mi teew ñépp danañ ko jéem a dégg borom niveau yu kawe ca xam-xama ñu digg doomu ña ñi nga xam ne dañoo nekk ci suufa kenn ko ne nga jéem koo yombal bu mën a wax ak moom woote mbooloo loolu la laaj moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy yónni eh, Muaz ibnu Jabal ca Yaman te fekk foofa ña fa dëkk ay intellectuel lañ comme ni ñu koy waxee ci jamono ñu woon ñu ñu toog ci seeni roq rek defar seeni cëram di ko jaamu wala yu mel noonu waaye dañoo doonoon ahlu kitaab dañ doon jàng di bind doon ay nasaraan ak yahut kon jàng nañ téere yu bari daf ne ko innaka tati qawman min ahli kitab yow kat maa ngi la yebal fi béréb boo xam ne ahlu kitaab a fa nekk maanaam ña fa nekk dañuy jàng di bind te dañoo jàngoon yeneen téere yu bokkul ak alquran ak sunna fal yakun awala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa la nga leen di jëkk a na doon ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasul loolu mooy lan mooy tawxiid bul fa nekk di yàq sa temps ci naan leen jikko bu rafet nii lay mel ak kuy julli nii lay jullee kuy woor nii lay waaye yow tàmbaleel ci bunt ba mooy nañ am tawxiid ba noppi parce que problème mu bokkaale lañ am kon boo demee tàmbaleel foofa Muaz ibnu Jabal jamono yooyu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di di yebal ànd ak ne ndaw la loolu ñu bari dañ ko war bi muy génn àdduna fanweeri at ak nangam la am fanweer ak juróom yi ne ni fanweer ak ñett te dund naa ak bi sallallahu alayhi wa sallam lépp fi nekk lépp moo tax dañuy nattale ne bi mu koy yabal ay atam manqué woon ne ñaar fukki at ak juróom wala ca lay toll waaye ànd ak loola téewul dañ koo préparé woon dañ ko jàngaloon yar ko xamal ko itam ni ñuy daaxlaa ba noppi yóbbal ko nag yóbbal boobu mu ko jox bi muy tàggoog moom kon ndaw ci biir rôle bu mag bu mu ci mën a joxe yonente bi alayhi salaatu wasalaam mas naa wax ak saxaaba yi ne leen aalamukum bil xalaali wal a xam lu dagan ak lu daganul ci yéen ñan mooy saxaaba yu mag yeeg ñëpp Abubakar a nga fa Usmaan a nga fa Ali nga a nga fa ñeneen mu ne ki gën a xam lu dagan ak lu daganul ci yéen mooy Muaz ibnu Jabal man xale bi ngeen gis mu toog kooku muy garaat boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko takkal benn diplôme bu mu jox Muaz ibn Jabal ñëpp teew dari nag saxaaba yi kenn ku ne am na diplôme boo xam ne bu ñu la ko waxoon da nga naan kii keneen melul ne moom waaye boobu moo teew tey bi mu koy yónni foofa gannaaw bi mu ko préparé jàngal ko li mu a jàngal ba ne ku xam xalaal ak xaraam la la ca tegu ba mu koy yebal nag da koo yóbbal ñii ngay waxal kat nii lañ mel dañoo nga xam ne spécialiste la ci woote ci woote imaam bu nekk war koo dégg jàngalekat bu ne war koo dégg yarkat bu ne war koo dégg mooy bu dee da ngay wax ak ab kuréel boo xam ne daa am niveau buñ toll bokk ak kuréel ba ngay waxal te fekk tolluwuñ ci niveau boobu su wax yi yépp nekkee benn rek njaxas am rawatina nag bu dee kenn nit ngay waxal ba tey woote mbooloo ak woote kenn dafa am njariñ maanaam woote bi ñaari façon yooyu waruñu cee jóge mukk am na ñoo xam ne bu buñ doon wootee conférence ba déwén duñ ñëw waaye am na yeneen i béréb nag yoo xam ne danañ fa teew am na ay xaritoo yuñ xaritoo ay nit ñoo xam ne borom xam-xam lañ kooku occasion la ci borom xam-xam bi mu tànn ñu benn par benn di toog ak ñoom di leen wax ñuy dégg di leen woo ci alxuraan ak sunna ñuy dégg bañ leen a séentu fee bañ leen a séentu ba dafa ñëw beneen occasion boo xam ne day dajale yëpp mooy jullik ajjuma xutbatul jumaa kooku occasion la boo xam ne daawa jamaaiya la woote mbooloo la nañ ko watteela suufeel ba nga xam ne boroom xam-xam yaa ñu yàgg ca daaw ba duñ ca jëriñu waaye nañ ko wattoo yëkkati ba nga xam ne ña ngi ànd woon ca garage ba di liggéey ak ñi nga xam ne jàngaguñ ci dara ci diine duñ ci mën a jëriñu kon day nekk lu ne ci diggante bi loo xam ne ñëpp dañ ci jëriñu loolu nag day laaj ak tàggatu boo xam ne eh, képp koo xam ne day woote daf koy aajowoo foofu daal li ñu bëgg a wax mooy woote am na anam yu bari nag ñu koy séddale yoo xam ne benn bu ci nekk xam ko doon na lu mënta ñàkk eh, woote jëme ci alquran ak sunna maanaam fadail yi ci nekk bari na lool lool lool danañ ko jéem a gàttal su noppee gàttal impact yi ci nekk bokk na ci ngëneel yi am moo di ndigal la lu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala jëm ci ab yonentam sunu borom moo waxub yonentam ne ko udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawidati alxasana wooteel jëme ci sa yoonu boroom moo ko wax ne ko qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ma ana min almushrikin kon li boroom bi tabaraka wa taala digal ab yonentam doy na ñu xam ne loolu doy na sëkk nga nekk ñaareel boroom bi tabaraka wa taala moo ne ki woote jëme ci alquran ak sunna boole ko di def jëf ju baax kooku mu gën a sell ñépp ay wax mu gën a rafet ñépp ay wax mu ne wa man axsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila saalixan wa qaala innani min almuslimin kon aaya boobu day wax ne kenn gënta rafet ay wax ki woote jëmale ci yàlla boole ko ak di def jëf joo xam ne ju baax mu doon lu am solo mimman daa ila allahi wa amila saalihan moo lay won ne woote jëme ci yàlla it warta doon waxi kese daa war a nekk wax ak jëf su doonee wax joo xam ne jëf àndu ca su boobaa daawa ba kii woote mi ngi loru waaye mën naa lore itam man naa lor keneen mi ngi lor boppam ndax mi ngi def bàkkaar bu rëy ci ne lim xam ba di ci woo nit ñi moom jëfewu ko kooku musiba la loolu melokaanu naafeq ya la moo tax mu bon mi ngi lor ñeneen ndax moom muñ yaakaar ne moo ëpp xam-xam ci dëkk bi wala boroom xam-xam ci boroom xam-xam yi dëkk bi ci la bokk muy woote di wax ba ñëpp xam ko ci wooteeg jàngale yare ñu wëlbati ko di ko fekk ci wàllu jëf muy def lu wuute ak li nga xam ne moom la doon woote kooku mën naa fitnaal nit ña mën naa fitnaal nit ñi man de xam naa nit koo xam ne ab élève la bu doon jàng ci daara ci école ab naar nekk fa bokk ci ñi koy jàngal bokk ci boroom xam-xam yi jóge ci réewum arab boroom xam-xam boobee di tux ay nit di ko roy ca tux ga moom moomee mu bokk ci ña ko ca doon roy ba ci jamonoy tey du ma fàttali ay jamono yoo xam ne ñu dajaloo di ko laaye bi rek di ko yedd dafa ne su doonoon lu baaxul jiw sàngam du ko def parce que boroom xam-xam bu mag la kon responsabilité bu mag boobu moom la boroom xam-xam am ci biir askan bi moo tax zallatul aalimi zallatul aalam maanaam su boroom xam-xam juumee rek mën naa yóbbaale mbooloo mu dul jeex su dëngee mën naa dëngaale mbooloo kon kii woote la muy woote da ko war a jëfe su fekkee lu mu mën a jëfe la su fekkee da caa lott nag ñu xam ne kii da cee lott maanaam néewuñu looy woote lu ne rek na doon looy jëf ndax su doon loolu ki yorul alal du jàngale asaka moom kay dana jàngale asaka ndax da ko war waaye amut lu mu génnee asaka nag waaye du tee jàngal nit ñi asaka ndax dafa bëgg ñu ña am alal ci ñoom ñi mën koo def ña mën a aju ci màkka ci ñoom mën koo def waaye bu dee lu mu mën nag mu def ko nag ñi di ko def ñuy gis boo dee julli leen ñi di la gis ngay julli boo dee woor leen ñuy gis ngay woor boo dee bàyyi leen tox bàyyi leen nangam bàyyi leen nàngam ñu gis nga bàyyi loola kon min man daa ila allahi wa amila waxaat ci ci aaya boobu kon ñetti mbir yooyu ñooy daje nit ki doon euh, koo xam ne ku sell ab wootekat la mooy nangu naa woote jëm ci yàlla boole na ko jëf-jëf ju baax ba noppi nangoo honneuram dëgg-dëgg muy sharafam ak i'tizaazam doon lislaam ci boppam ñetti tomb woote boole ko ak jëfe boole ko ak damoo lislaam maanaam sa ndam li gën a rëy li nga xam ne yow su nit ñuy damoo yeneen yi loola ngay damoo loolu mooy sa lislaam tabil islaamu laa abali siba suñ nee sama bàyyi jëf bi saa maama meloon ni nga deman day lislaam am te nag loolu mooy li lépp waaye am na ci nit ñi ñoo xam ne seen lislaam dañ koy nëbbu buñ toogee ci yenn jotaay yi rus nañoo wane ne sax ñoom ak jullit kooku ak feebal la suufe la ñàkk solo la moo tax mimman daa ila allahi wa amila salih wa qaala innani min al muslimin fu mu ne war na faa mën a wax man ab jullit la bu dul ci làmmiñam it mu def ko ci melokaanam ñu gis ko bu julli jotee ñu gis ko muy julli bu woor jotee ñu gis muy woor bu jëf lu baax jotee ñu fekk ko muy def lu baax bu tere lu bon ak daw ko ak sori ko jotee ñu gis ko mu di ko tere di ko daw di ko sori kon melokaan yooyu mooy daje jullit bi doon jullit bu sell doon ab wootekat bu sell bokk na ci ngëneel yi moo di ne wootekat yi ñooy ñi gën wootekat yi digle lu baax di tere lu bon ñooy ñi gën ci xeet wi suñ borom a ko wax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas li bilmaarufi wa tanhawna anil munkari wa tuminuuna billah yéen yéen ay xeet wi gën ci xeet wi xeet wu yàlla mas a génne yéen a ci gën tax nee na ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkar da di digle lu baax di tere lu bon loolu mooy woote ci alquran ak sunna ak tere nit ñi lépp loo xam ne dafa jóyoog alquran ak sunna muy pas-pas bu yàqu wala muy biddaa wala muy mooy yàlla wa tu'minuuna billahi boole ko seen ngëm doon ngëm gu mat sëkk boroom xam-xam yi dañuy wax ne euh, fii dafa jiital digle lu baax tere lu bon ba noppi door ne wa tuminuuna billah kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bilmaaruf da ngeen di digle lu baax wa tanhawna anil munkar da ngeen di tere lu bon wa tuminuuna billah ngeen di gëm yàlla lu tax mu jiital digle lu baax tere lu bon mujje ngëm yàlla ndax ngëm yàlla moo gën a màgg lépp ñu ne ki ñuy wax meloona melokaan yépp ba noppi ci tax ñuy wax muy saxaaba yi nga xam ñoom ñoo ci jiitu ba ñuy wax kuntum ja ñoom ñoo ko teewoon kon ci ñoom la tàmbalee képp ku leen roy itam bokk ci ñoom meloon nañ ba noona ba noppi kon nag lu tax ñu jiital bu am solo bii moo di digle lu baax ga ak tere lu bon la loola dafa doon lu jóge ci ñoom jëm ca nit ña lu koy jàllale la tuuminuuna billaahi ji nag daa doon loo xam ne ci seen bopp la yam kon suñuy lim yi ëpp solo ci wàllu diine dëgg la li nga xam ne mooy ngëm yàlla moo gën a màgg lépp waaye buñ ko xoolee ci geneen anam sa pas-pas yow ak sa bàyyi biddaa lépp lu aju ci say jaamu yàlla loola yow yaa ko moom waaye nag la jëm ci nag nit ñi nga di leen ko baaxee loola moo baawaan jëm ca biir askan wa loola lu ay téeméeri nit ñoo ci war a defaroo yu mel ni yow ay ñaari téeméeri ay million ci ay doomu aadama mën nañoo defaroo ca woote boobee loola moo tax loola gën a rëy li nga xam ne kenn ki moo ko jaxoo loolu la borom xam-xam yow ci tomb boobu ñi nga xam ne ñooy woote jëme ci yàlla bokk na ci seen i ngëneel moo di ne borom bi tabaraka wa moo leen dig ak texe ci àdduna ak ci àllaaxira mu ne wal takun minkum ummatun yad'una ila al xayri wa ya'muruna bil ma'ruf ci yéen ñu jóg ak sunna lu baax di tere lu bon mu ne ñooña mooy ñi texe texe googu texe àdduna la ak googu àllaaxira ñi nga xam ne dañuy woote bokk na ci seen i ngëneel moo dina yërmaande sunu borom tabaraka wa taala day sotteku ci ñoom sunu borom a ko wax nee na wal muminuuna wal muminaatu baaduhum awliyaau baad yamuruuna bil maarufi wa yanhawna an il munkari wa yuqimuuna alsalata wa yutuuna alzakata wa yutiicuuna allaha wa rasulah ulaika sa yarxamuhum allah inna allaha azizun xakim nee na jullit yu góor yi ak yu jigéen yi ñoo ñooñu day kenn ku ci nekk yaay péetam sa morom maanaam dañuy jàppaleente dañuy dimbalente moo tax dañuy digleente lu baax di tereente lu bon boole ko di julli di joxe seen asaka di topp yàlla ci lépp loo xam ne digal na leen ko akub yonentam di topp yàlla akub yonentam mu ne ulaika sa yarhamuhumullah ñii nee ma ñooñu ñoo yeyoo yërmaande suñu borom tabaraka wa taala te ñoom la yàlla di yërëm kon lu am solo la ci weccente boobu jàppalente boobu ci digle lu baax ak tere lu bon bokk na ci ngëneel yooyu mooy kii digle lu baax ab yoolam day continuer te day fulu rek di dem kenn nit ki nga xam ne da nga koo jàngal lu baax woo ko ci alquran ak sunna ba mu jàpp ci alquran ak sunna loola yow am nga ci yoon bu réeréeréer boo xam ne kenn xamul lu toll suñ borom rek moo ko xam kooka jóg di jàngal keneen wala ñeneen kum jàngal wala ñum jàngal lu mu ca am ci tuyaaba moom yow am nga lu toll noona te du wàññi dara nag ci tuyaabaam moom ñooñu amaat na ñeneen ñu ñuy jàngal tuyaaba jën ciy jël ku jël rek yow mi tàmbali woon yëpp da nga cay amaat kon loolu dafa doon mbir moo xam ne du mën a lu tuuti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci xadis boo xam ne muslim moo ko solo mu ne man daa ila huda ku woote jëme ci njub woote jëme ci njub mooy woote jëme ci alquran ak sunna kaana lahu min al ajri misla ujuri man ittabaa képp koo xam ne woote na jëm ci ak njub dana am yool bu toll ne yooli ña ko wuy si maanaam yool buñ am ak ñoom rek am nga ca am nga ca sa waaye nag laa yanqusu dalika min ujurihim shay'a loola ci seeni yoon dara kon kooku aw yiw wu rëy la woo xam ne suñu borom tabaraka wa taala rek moo xam nu mu daanaka jullit bi bu xamoon ni loolu toll jar na sax faf mu bàyyi lépp rek di di di liggéey ci daal woote ci alxuraan ak sunna ba keroog ndax la ca ba ca tegu moo di ne ñi nga xam ne ñooy woote doy na sëkk ci ñoom ndam doy na sëkk ci ñoom dalu xel ak mbégte ñu xam ne seenub yool yaatu na lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fa wallahi nee na waat na ci yàlla ne la an yahdiya allahu bika rajulan waxidan xayrun laka min xumuli naam ca beneen riwaay ba xayrun laka mimma talaat alayhi shamsu wa garabat xadis mi ngi ci buxaari nee na moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam waat na ci yàlla ne yàlla gindi benn nit ci sa loxo moo xam daa nekkoon ci kéefër yàlla gindi ko ci sa loxo mu dugg ci lislaam ci sa woote wala daa nekkoon ci ay biddaa sunu borom tabaraka wa taala gindi ko ci sa loxo mu ñëw ci sunna wala dafa nekkoon ci ay mooy yàlla nga waar ko ba mu bàyyi mooy yàlla nga ñëw ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sab yool moo gën a màgg la gën a màgg ci lu nit ñiy naw fa ñoom bu doon ci jamono yooya xumuru naam gëléem yi nga xam ñooy façon gëléem yu xonq yi am ci seeni jamono yooya moo doon gànjar ga gën a foor ci ñoom mu ne kooka lam am ci tuyaaba jiñ ko bindal ci jenn jëmm jooju ëpp na loola xam ngeen gëléem bokk na ci eh, mala yi nga xam ne seen mbir dafa doon lu doy waar moo tax suñ borom tabaraka wa taala akub yonentam lu bari ci ay misaal ñi di ko ci joxe ñi nga xam ne dañoo xam xeeti gëléem dëgg dëgg dëgg dëgg xam façon yi am na ci biir gëléem xeetu gëléem yoo xam ne ba ci suñ jamono jii ñuy toll bu yàggul rek lu ëpp weer ak nàngam noog lenn ci ay mbokk ziyaare nan kilifa goo xam ne ca nëj mu yor géttu gëléemam goo xam ne la fa nekk ci ay gëléem mooy xumru naam ci ñoom ci suñ jamono tey jii benn bu ci wax ne bu ci nekk dalay wax ne buñ ma fayoon bis nekk tey un million ci riyaal duma la ko jaay un million mooy cent million wala cent vingt quatre millions ci suñ xaalis nun tey genn gëléem gi kon loola lu foor fa ñoom la te lu foor fa ñépp la ndax cent vingt quatre millions defe naa lu am solo la su fekkee jëmm ji nga xam ne waar nga ko ba mu bàyyi lenn lu bon lam doon def borom bi tabaraka wa taala bind na la ko yàlla toog loolu doyoon na sëkk waaye yonente bi alayhi salaatu wasallam am leneen lu mu wax lu gën a rëy loolu nee na li nga xam ne mi ngi ci àdduna suñ ko boole woon ak li ci biiram la nga am yow ci tuyaaba moo ëpp moo ëpp loola kon loolu euh, woote ci yoonu yàlla lu rëy bokk na ci ngëneel yi moo di ne woote ci yoonu yàlla moo di sababu najaat min al mooy tax a ci pertaange sunu borom tabaraka wa taala ci suratul asr bi ne wal asri inna al insana la fi xusr dafa ne illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil xaq wa tawasaw bi sabr ñëpp perte nañ ba mu des ci wuy ji boromam yóbbaale ngëm yàlla boole koog doon jëf-jëf ju baax fii ci àdduna sori mooy yàlla yu sor bi daay boole ko ak di laaye biir doomu aadama yi di leen digal lu baax di leen ko tere kooku moo perfet kooku mooy kiy def daawa moo mujj bokk na ci ngëneel yi moo di kii woote moom setal na ab jaram fa sunu borom tabaraka wa maanaam jaanam wàcc na comme ni ñu koy waxe ki nga ñëw digal ko lu baax tere ko lu bon yow sa jaan wàcc na su ko jëfee rek am nga yool bu toll noonu waaye su ko jëfewut it am nga yool nag ndax boo dajeeg sa borom da nga amul lay moo tax borom bi daf ne wa id qaala taifatu minhum lima ta'izuuna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adibuhum adaban shadida qaalu macdiratan ila rabbikum wa laallahum yattaquun nee na ñooña dañoo ñëw di woote di waaraate ñu ne leen waaw yéen yéen a ngi yàq seen waxtu kat da ngeen di ñëw ci ñii nga xam ne kenn ku nekk xam na ne li ngeen leen di wax duñ ko nangoo dégg yéen xam nga ne ñi ni ñu àlku lañ ba noppi lu tax ngeen di leen woo di sànq seen temps xaaloo ñi tontu leen ne maadiratan ila rabbikum ndax nu amul ay suñ borom ba kenn du neen woote wu leen woon maanaam def nanu lanu war te it wala allahum yattaqun amaana itam mën nañu gindiku kon bu mu am kenn ci société bi wala kuréel wala mbooloo moo xam ne danga nga daan ñi moom alku nañ jeex na kenn mënatu leen a woo kenn mënatu la wax ak ñoom déedéet lu mel noonu amul wootekat bi xamut loola lu mu lëndëm lëndëm ak lu ñooña sori sori sori du ñàkk bunt wala fenêtre wala boo xam ne warees na faa mën a jaar ba wax ak ba wax ak ñoom kon bul ne kenn alku na te fekk paasawul ginnaaw mi ngi dund daal di dem ak a ñëw dese na occasion boo xam ne mën na ci gindikoo te wootekat bi ci kaw suuf si dafa mel ne benn médecin boo xam ne dafa xam lool tawat yi gis doomu aadama yi feebar ba noppi nanguwu ñëw faj yërmaane jooju muy am ak pexe yi muy am bëgg leen a convaincre ndax ñu nangoo ñëw ñekku wala ñu nangoo ñëw faju coono bu mel noonu la war a yëg moom wootekat bi kon yërmaande la dencal doomu aadama yi bëgg ñu gindiku ba njub am ci kaw suuf waaye ba mu am itam tuyaaba loolu moo tax muy yëngu moo tax muy dem ak a ñëw kon yëg-yëg boobu lay am